ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله عنه قال jëlee nañ ci sayiduna abu hurayra al na yàlla gërëm ko mu ne qaala rasulullahi suñu sang yonantu sallallahu alayhi wa sallam wax na walladi nafsi bi yadihi waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan a nga ci loxoom te mooy yàlla tabaraka wa taala waat naa ne laa tadxulul jannata xatta tu'minu du ngeen mën a dugg aljanna fekk gëmu leen wala tu'minu du ngeen mën a gëm gëm gu mat xatta taxaabu fekk soppantewu leen awala adullukum ala cheyin xanaa duma leen tegtal lëf ida faaltumuhu lool su ngeen ko defee taxaababtum ngeen soppante xanaa duma leen wax loo xam ne su ngeen ko jëfandikoo soppante mu mel dañ ne ko ahankay mu ne afshu salaama siiwal leen jàmm baynakum seen diggante ku ngeen romb xam ngeen ko walla xamu leen ko nuyu leen ko yéena leen ko jàmm xadis ji ngi ci muslim yonentu sallallahu alayhi dafa gëñ te moom su waxee te gëñut sax dëgg la sallallahu alayhi moo gën a dëggu làmmiñ gën a dëggu xol ci way njëkk ak way mujj ne li nga xam ne ñun ñëpp suñ bëgg-bëgg la wala gannaaw yàllaa ko bu yonantam mooy bëgg-bëgg jullit bu gën a rëy mooy dee dem aljanna mu ne du ngeen ko mën a am nag mukk feeg amuleen ngëm ngëmit du mën a am feeg bëggante amut mu mel ni xam na ne bëggante dajut jàngoro la ju tasaaroo dal ñu bari <clears throat> moom nag bu tuddee jàngoro sallallahu alayhi wa sallam yërmandeem ak baaxam ak mission mooy joxe saafara ne xanaa du leen wax saafara soo xam ne su ngeen ko sangoowee yéen ñëpp da ngeen mën a soppante jën saafara la yow ki yàlla yebal sallallahu alayhi wa mooy saafaraay wasaare nuyoo siiwal jàmm koo wan jàmm mu wan la jàmm li gën a bari waaw alaa tuhibuuna an yaxfira allahu lakum ku bëgg ku la baal da baale ku bëgg ku la jàmmal dangay ngay jàmmale wa qulu linnaasi xusnan yal yàlla may ñu ngëm gu mat sëkk may ñu soppante gu mat sëkk may ñu fuñ toll yéene